waa histoire gëléem bi euh, nit yi lu nekk dañ koy wax da nga ni dafay wax dëgg teel a tax ndax booy ànd ak yàlla te bëgg dëgg waxal nit yi dëgg te boo ànd ay jullit ak doomu aadama waxal li nga xam ne bu ëllëgee bu nu ko nattali doo am si am gaañ-gaañ ñoom duñ si am gaañ-gaañ sama baay Cheikh Dramé ba mu jóg fii di dem Cheikh Talib Boye pour julli ak moom dafa yëkkati tànkam ci li ma lay wax ci géem yi laa ko dégg sama nopp bi du keneen mooma ko du keneen moo ko sama baay mooma ma ne ba mu génn ci tabaxam bii di dem ci Cheikh Taliba julli ba mu teg tànkam dafa mel ni yàlla daf ko woon doomu aadama yi malaayka ak doomu aadama yi nekk ci suufam ñi nga xam Cheikh Saadu moo gaddu di leen dàq ci ci biir àjjana mu yenn Cheikh Taliba Cheikh Talib boo jël benn fas jox ko Abdoulaye Zamil benn taalibam mu indi ko fii ci moom mu war moo dem julli kayo moom Cheikh fas fas la waroon Cheikh Talib boobu moo ko yenoon fas bi gannaaw boobu Cheikh Ibrahim Cheikh Talib boo jox ko ndigal ne naka fas wurul waral ci kaw gileem Cheikh Ibrahim nag Cheikh Talib boo jox ko mu jël gileem boobu di ko war Cheikh Talib boo Cheikh Ibrahim jël gileemam doomu gileemam mu yar mu dem ci àll bi su xëy bi su julli bi gëléem bi daal di ñëw fii loolu taalibe gis loolu doomu aadama yi gis xam nu fu mu jóge bu nu xëy rek nu gis ko fii rek loolu la mooy benn gëléem bu tudd kontor bu weex la loolu moo indi affaire gëléem bi mu nekk doon la sama baay sama mag Cheikh Bourina moo ko war gannaaw Cheikh Bourina man la déet gëléem boobu man sama bopp ba mu neexee suba ma dem jënd sama gëléem daal di ñëw taxaw dégg nga xee war bi li si am solo mooy war bi ci kaw giléem bi giléem bi nag du giléemu sama papa bu mu doon war du giléemu sama mag bu mu doon war man war naa fi ay giléem sama papa bu mu war giléem bi mu doon war fii am na benn bu nga xam ne année bu mu génne àdduna fa moom génne àdduna dafa woo taalibe yi ne leen rey leen giléem bi daf ko ray même pas trois jours quatre jours jour cadram dem génne àdduna waaw sama mag Cheikh bu doon itam giléem mu waroon itam rend ko fi mu dem dégg man maa ngi fi dégg lii mooy waxu dëgg ci gërëm ñun dañ ko jàpp mooy misaalu Seydina Muhammad ba mu jóge Màkk ba mu jóge Màkk di dem Medine moom rek moo war ci kaw gëléem dem Medine ci kaw gëléem amul benn tarixa wala amul kenn bu nga xam ne dana présenté Seydina Muhammad bisu bisu korte dem ci jullikaay bi lu dul sa mbaay si à part loolu sama mag Cheikh Bourdieu wala man ci àdduna bi yëpp da nga gis nag.